fa démb ndax ndaw yi ñoo yëglu foofee ginnaaw waa Benno Bokk Yaakaar ak APR yu fa am la ab dox euh, wala boog meeting euh, meeting boobee de soutien jëmee ci seen njiit Macky Sall la ndaw yenn yu euh, maatam rafetluwul ndax ñoom dañ ne jamono yi ñu génnee téeméer ak ñaar fukki million ngir meeting waroon na wala boog xajoon na feneen ak jafe-jafe yi neen fa ñoom Ali Bondel ñoom. bi ñu siiwalee rassemblement bi responsable APR yi woote woon ca Matam la tàmbali di yëglu ci seen ni askan waa ngi lott ci jafe-jafe ci wàllum dund rawatina wàllum mbas mi fi lëmbee lu ko jëlee ci réseaux sociaux yi nag lañ ko tàmbalee doon ñaax askan wi ñu bañ a wuyu ba ci rassemblement ba ñu amal ca Carrefour Ourossogui ndaw yooyee la nag bokk ci mouvement bi ñu dippee Macky Yeeyo Fouta ci seen njiit Cheikh Omar Niang trop c'est trop lu woo tubaab bi wax maanaam lépp tuuru parce que ñu ngi presque ci deuxième mandat président de la république souvent am nañu tendance di euh, doomu léttukat maanaam dingal mooroo sakitoo mooraat toog nañ fekk responsable yi kenn si ñoom la fu ñuy génn si aussi jot na si wàllam mosuñu gis benn responsable dajalee ne serait un million ñëw dimbale hôpital Matam duñu def dara waa duñu kaas waa Matam duñu taal ma leen loolu amatul moment bi dafa jot ñu wax président la République ñii bu dee ñii la def confiance bu dee ñii la am yaakaar ñu ngi koy trahir duñ ko wax dégg le président la République il est temps moom si boppam mu métti maanaam tey ñu topp jéggi waa responsable Matam les dix communes département dañu leen benn somme bu toll ci cent millions cent millions tey mënoon a defar lu ba lu bëri rangoo woon nañu seen ay morceau yu xonk wa seen manifestation bi yëngalul dara Paris yi nga xamante ni gagné nañu Paris mobilisation bi donte itam ndaw ñi ngay sàkku beneen anam bi ñuy defee politique waaye askanu Matam génn nañu ak doole ngir wuyu woote responsable APR yi nga xamante ni daje woon nañu ci Matam mu nekkoon sa naataango Ali Bandel ñaa fi ci doonu Matam RFM. jërëjëf Ali Bandel lu euh, safaanoo ak gis-gis boobu yenn ci ndaw yi Matam am euh, ñoom gox ba euh, njiitu réew mi bawu leen ginnaaw loolu mooy gis-gisab kenn ci responsable yi fare ca gox ba Moustapha Deme lay